wala man li ma bëgg mooy nga ñëw mooy la li ma bëgg a wax mooy euh, le fekk que le président Macky Sall euh, tey jii nii gis nañ dayawaayam ak taxawaayam ci wàllum politique. Mm-hmm. aussi élection yi ñu fi jot a amal yëpp lu ci gën a bëri moom moo ko gagné. da koo sàcc élection yii présidentielle yii passé. dama bàyyi ba ma pa xam naa ko da nga yow. maanaam da nga ma bëgg kii ba li ci des duñ ko wax. dinañ wax lépp incha allah lépp li nga bëgg a wax parce que le temps est compté. li li lépp la ñuy wax. dama la invité tey incha allah lépp loo bëgg a wax. waaw di nga ci wax loolu moom na sa xel daal. Macky c'est l'homme de l'échec. bu ñu gisee tey socialement ak politiquement bu ñu gisee tension bi am Sénégal nga defee ni c'est pas un échec politique. y a une tension per permanente au Sénégal Sonko buy génn benn waay nee na ma daal Sonko nay génn ndax Sonko buy génn Sénégal am sécurité Sonko fu muy génnee euh, une division blindée moo ko topp. et ça crée une tension quand il y une tension les investisseurs ne viennent pas Sénégalais dañuy tiit ba ñu def dara foo wër ci réew mi. Sonko fan nga ko gisee ay ay ay ay kii li nga wax ni léegi. muy def nemmeeku tuur blindé toppuñu ko. blindé yi dañ koo topp ci département Kébé euh, bi mu demee Tivaouane ak yooyu blindé yi dañ koo topp bi mu nekkee boori Mbuur ak yooyu te Macky Sall bay na ko mu def deux ans le tour du Sénégal oto sax topp ko. nga naan ma Sall c'est un homme politique. d'accord politique ma wéyal ma wéyal sama question. parce que saa yu ne ba bëgg a yeggali nga daan nga yàq ko. mu di le fait ñu gis kujje politique yi am benn division maanaam xàjjaloo. te ngeen ne maanaam da ngeen a bëgg a booloo ngir jëlee fi le président Macky Sall. est-ce que avec ça di ngeen atteindre seen objectif. bu ñu koy def xam nga man lu ce que je souhaite. Mhm. Sonko ñu bàyyi ko. normalement mu nekk candidat te bu soobee yàlla dana nekk candidat kenn tereegu ko nekk candidat waaw mais Macky Sall looluy wut pour teqatal ko par une loi nga nekk ci biir xelu Sall quand même yi muy posé affaire u Adji Sarr lan la un truc n'existe même pas nga inventé ko moo indi Mamour Diallo Mamour Diallo inventé ko teg ko uniquement pour teqatal Sonko du nekk candidat Sonko sera candidat déglu ce que je souhaite Khalifa Sall je souhaite qu'il soit candidat Karim Wade bu bëggee ñëw je souhaite qu'il soit candidat et les autres bu ko defee nag buñ ko defee ba noppi mhm. au deuxième tour képp ku jàmmaarloog le candidat du pouvoir li ci des ñëw dimbali la comme ça se faisait d'habitude loolu mooy logique bi ñuy liggéey li ci assemblée nationale mhm. ku fa nekk buñ mënee ànd buñ munta ànd ku ne nu la neex nga def nag mais nag te mu bañ indi xeex ak xuloo ak ŋaayoo. d'accord dans l'opposition. d'accord Père Goumbala lan nga gisee taxawaayu député ku politique yi rawatina waa Yewwi Askan Wi ci assemblée nationale ba ñu tàmbalee ba léegi. mais il xam nga assemblée nationale lu fa nekkoon. Mhm. ay taasukat ak i ku jóg naan le président Macky Sall di ko tagg. loolu moo fa jeex bu fa jeexee nag te musu faa am loolu moo tax sénégalais yi di coow. Malawi bërki démb député yi dañoo xeex ba génn ci biti Pologne les le pays de la l'Afrique de l'Europe centrale bi mur le Berlin daanoo ba le pan soviétique daanu hmm. Europe centrale boo ko seetee la ñu accéder à un début de démocratie élection yuñ masaa def hmm. bu ñu defee parlement bis bu set ñu xeex ci parlement ba ba génn lii nag c'est un début buñ ko defee ci quatorzième législature quinzième législature mel nii duutu am problème ndax dañoo dañuy am habitude nekk ci assemblée plurielle assemblée plurielle nag day doog a am lii fi nekk lépp ndaw soosu nga gis naan kii ñibi naa naan Amy Ndiaye ñibi dinañ ci ñëw Amy Ndiaye ñibi dinañ ci ñëw mais Farba moo ko wax dem saaga gars yi ah bon moo ko ko wax non Farba Ngom a dendoon. waa léegi ñoo dendoon rek. mu ñoo ko waaye yow Farba Ngom dafa ah, dans le groupe Benno Bokk Yaakaar dafa am ñaari sous groupe groupe des intellectuels dirigé par euh, Youm groupe des va t par Farba Ngom grise euh, euh, di. li ngay wax ni li ngay wax ni li ngay wax ni. garaawul ma ko wax. Farba Ngom mi ngay traité de Farba mi ngay traité de lii ngay li ngay. lu ma ko traité dama ne moom mooy ruux. mooy ruux ñuy saaga ñuy saaga. koy def xanaa gisoo ni muy doon saaga Sonko keroog à l' nationale quand il a pris la parole Sweet Beauté moom lay développé assemblée nationale. ah yi nga xam te nga xam te ne aussi. Ah, li muy wax mooy Mimi. d' accord quand il a la parole ci Mimi Touré déglu ma naan Mimi Touré ab keroog ba mu defee discours de politique générale étant premier ministre après président damaa jox ma seeti ko Mimi Touré man ànduma moom Mimi Touré ministre la nekkoon. Mhm. astafurlah ministre. de la justice. premier ministre nekk premier ministre. jóge fa nekk conseil spécial du président yor conseil économique Mimi Touré fu mu saa nekk ay milliards lay gérer defe nga ne kooku dana soxla ay milliards yu ko far ba Senghor di kii euh, Farba ngoom di wax. et Farba ngoom avait di la même chose aussi ci Thierno Alassane Sall fàtte nga ko. naan damaa àndoon ak moom ñu dem wuti loolu. loolu mooy ne aussi gars yi bu ñu nekkee ak le président nekk ci nekk ci nguur gi maanaam ni ñuy ni ni ñuy cla ni ñuy clasher ni ñuy ni ñuy critiquer euh, muy neex bu naqaree aussi euh, ñu assumer que ne ba muy neex am na lu nga xam te ñu ngi ko nit noonu nit moo la nature humaine est ainsi na ko mooyale boo nekkee ci bànneex ànd ak nit na mel bokkut ak fekkee da ngaa euh, nit ñi dañoo nekk say adversaire melut non c' pas la même chose. d' mais mais taxawaay député Yewwi Askan Wi nga xam ne nii nee nañu euh, euh, budget yañ fa wote yëpp. amul benn boo xam te ne voté nañ ko loolu aussi est ce que luy doxal budget yañ fa doon voté lépp ci assemblée nationale amul lenn loo xam te ni ñoom voté nañ pour lépp contre la ñu loolu est luy doxal am tamit. mais pourquoi man bu ma wote wut budget bi jàll nag oui le problème la fonction de l' opposition c' est de s'opposer ba ba ba ba nekk nihiliste wala. nihiliste. d'accord quand tu n'es pas d'accord avec la politique totale du gouvernement ministre bu un ministre il a un pan de la politique gouvernementale gannaaw d'accord politique gouvernementale ministre bu dikkee doo ko watee lu tax ngooy wate boo ko watee bu ëllëgee euh, ñu lay léegi réew mi nan lay doxee bu dee député yi ñooy toog ne dañoo dëgg suñu dëkk boo ca waro seegi am ab tëli mm. wala am ay école ñuy wate ministre bu yor wàllum infrastructure wala ñuy voté ministre bu yor wàllum njàngame ak njàngale mi nga ne doo wote ab budget am loolu aussi nan la say mbir war a voté wut est-ce que budget bi jàll na wala jàllul dina jàll ah, bu fekkee bu fekkee bu non jàll na mais malgré mais non dama la bëgg a wax leen rek opposition ba nekk fee mhm. seen fonction mais de s'opposer à la politique du gouvernement ministre bu ñëw tu porteur d'un part de la politique du gouvernement duñ ko wate néanmoins gouvernement bi moom am na majorité boo xam ne bi ki kiyam dana jàll et puis d'accord yaa fi wax léegi problème amu fi euh, maanaam ay mini ay ay député yu doon taasu lañ amoon ci assemblée nationale waaw ñu dem ba 2022 gis ay député yoo xam te nii ay maajéri la ñuy dóor ay xale yu jigéen waaw loolu moom est-ce que gën te yéeme est-ce que mën naa la wax leen sëriñub jaambur bàyyub jàmbur boo ko yàggee saaga danga nga mas a am bis sëriñub jaambur bàyyub jàmbur kenn du ko saaga kenn du ko saaga kan lañu saaga ah seetal rek yaa ne loolu jàmbur bàyyub jàmbur ah kenn du ko saaga buñ ko saaga sëriñ buñ saaga da ngay léebu mais damaa boo xam kan lañ saaga ñoom ko xam nga tu surtout cité wut sëriñ bi ma voilà effectivement sëñ Saliou Mbacke yàlla na ko dool yàlla dooli xéewal ki ngëneel ak ki leer ba ilaa yawmi diin ak ñam nekkal sëñ Saliou Mbacke nee na lu ñëpp xam kenn du ko wax des koy junji xam nañ ki mu doon wax ba nga ko waxee ba noppi ñooñee mooy yow da ngaa wax kan da ngaa ragal ma ci wax muy indi problème jaru ko xam nañ ko ñoo sëriñu jàmbur da koy respecté léegi bu ñu waxee ah. léegi sëriñu jàmbur ñu ah. bari ñu ñu jàpp mooy hmm. photo bi ngay gis nii ci écran bi hmm. sëriñ Moustapha Sy waaw moom la ñu jàpp ne moom la doon léebu soxna si. yaa ko wax de man wax d'accord maa ko wax. waaw léegi. Mm-hmm. yow. Mm-hmm. par rapport ak soxna si kàddu yi mu yëkkati. Mm-hmm. ana lan nga jàpp ne moo ci ñaaw. gis nga dama laa bëgg a wax leen en toute sincérité. sëñ Touba boo ko tuddee. billaahi beneen dimension laay nekk. beneen dimension laay nekk. looloo tax affaire sëriñ. Mm. te tere xëy ñoo ŋënk ñoo ŋënk Sénégal. dañ leen di war maal. sëriñ des koy wormaal moom moomay dëkk moom ndaw soosu xaw ma naan ñii bi hmm. wóor na ma ne bu demee ñii bi ga ñii bi dana faxat ah sëriñ bi dafa am ay taalibe dafa am ay taalibe bu fa demee dana faxat te li ma la bëgg a wax hmm. sëriñ bii ngay wax ay taalibeem hmm. ak taalibe sama xarit di sama sëriñ sëñ Modou Kara ñi ñu mel ci seeni sëriñ ñi ko mel ci sa sëriñ bari wut moo tax seeni sëriñ danga leen di wagar loolu laa la bëgg a xamal yow journaliste. d'accord